taxaw fi le président madame Faye da lay laaj sànq wala assalaamu aleykum Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général de Tidiane maa ngi lay nuyu ci nuyoo bu gën a tedd di jox nuyoo sama nuyoo bopp ak nuyoo soxna Mariam bi ma ak délégation gouvernement bi ma àndal ak institution yi ñànk Sénégal yëpp ci bés bu tedd bi ñuy waajal muy bésu gàmmu wala di guddi gàmmu ñëw di la sargaal waaye itam di la ndokkeel yow ak njabootu Sidaaj Malick si bi nekk si ginnaaw yëpp ñu leen di jottali lu yooyu ak ziyaara yooyu damay ma rek ma lim ci ñenn ci kilif ba ak seeni rakk rawatina ci sunu soppe également ak sunu wàllu Sëriñ Mansour si Jamil ak njabootu sëriñ Seydi Mansour borom daara ji sëriñ Cheikh Tidiane Sy ak mbooleem njaboot yi nga xam ñoo toog fii tey nekk sa ginnaaw ak mbooleem muqaddam yi ak taalibe yi kon ñu santaat suñu borom bu baax buñ ñu mayee ñu fekkee waat ren suñu waajal gàmmu ñëw fii ci Tiwaawan fekk la fi si di ñaan yàlla yokk sa taxawaay bu baax a baax di ñaan yàlla mu may ñu ñu yàgg fi di fi ñëw di la fi fekk di bokk ak bés bi waaye tam di taataan ci barke guddi bi nga xam ne gën di mbindeef moo ko moom kon bés du gën a màgg bésu gàmm ci jullit te xam nañu ne fu ñu waxee mawlud xel yëpp Tiwaawan la jëm ndax liggéeyu sa maam Sidaaj Malick Si moo ko fi yaatal ba yàlla def Sénégal ci réew jullit yi bu ñuy xool ni ñu màggalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jafe na ci réew jullit nga gis màggal bu toll noonu ci gën di mbindeef rawatina guddi gi ak fu ci Tiwaawan ak li ko wër te man si jaaju Malick ñaanoon ko boromam bu jotee lu genn guddi ci at mi mu woote si woon jàngale ak xam-xam ak war a sant ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu doon sagoom njabootam yëpp ñëw fekkee ko jàpp naa ne ñaan boobu suñu borom may na ko ko kon ñu sant bu baax waaye santaat la sëriñ bi ci taxawaay ngi yore tey ji njaboot gi yëpp yore ko lislaam bi ci fànn bu nga yor muy tarixa bii di tarixa Cheikh Ahmad Tijaan radiyallahu taala anhu muy tarixa tijaaniya fii ci Sénégal kon ah, li ma waxoon ci njalbeen rek laay feddaliwaat ci sa wet sama fas yéene fii ak maa koy man fii ak maa ngi yor taxawu këru diine taxawu lislaam bi ci anam ñu ko war a taxawoo loolu am na luñ si tàmbali ndax tàmbali laa koy tuddee bokk na si li ñu wax léegi waaye yéene bi ëpp na li ñu tàmbali kon dañ ñaan yàlla ci kattanam ak mbaaxam ma may ñu ñu mottale yéene yooyu ànd ko itam ak yow ci yeneeni liggéey yu amal fii ci dëkk bu tedd bi di Tiwaawan war ko amal itam ci këru diine yépp kon loolu ay feddali rek lay doon lu ma bëggoon profité wax ci sa wet waaye bu ma ñëwee tey faawut ma delloo njukkal sa mag ji nga xam ni moo fi bàyyeekoo bu yàggul muy sëñ Abdoul Aziz amin alamin di ñaan yàlla mu yokk yërmandeem ci moom sunu borom xare ko ci àjjana mi tedd liggéeyam rafetoon na Sénégal jooy nañu ko ndax li nga xam ne sunu borom moo ko dënkoon ak na mu ko doxalee ba fi mu wàccee liggéey kon suñu ñëwaatee fii ci barab bi faaw sama xel dem ci moom du ma mën a wax mukk ba pare te duma def référence boobu ginnaaw loolu sëriñ bi ah la ma la waxoon xanaa lépp luy rek yitte en tout cas bu ñu ko yëgee daañ ci taxaw suñ kem kàttan gouvernement bi ci boppam ah, ndigal liñ ko joxoon am naa yaakaar ni ñu ngi ci góorgóorlu su si amee lu ci dëng it xamal ne yéene bi moom mu ngi fi ah xanaa bu ñu ko xamee rek xool mu ñuy jëbbante ngir mu gën a baax rek waaye su doon suñu sago lépp loo solowoo te ku ne xam na ni amula benn soxla bu nekk sa soxla personnel loo xalaat rek askan wi la ak taalibe yi ak njaboot kon te xam naa ne doo nit kuy wax defal leen diw defal leen ma lii wala defal leen diw lii waaye nag eh, ndogam da nga woon njaboot yor lu toll Tiwaawan ak li ko wër ak li aajowoo ci moom war nañ di bàyyi xel rawatina ñi nga xam ne ñoom la la yàlla booleel fii ci Tiwaawan muy maire bi muy conseil départemental mooy gouverneur ak képp kuy autorité administrative bi ci ministre de l'intérieur ñu bàyyi xel ci loolu eh, kon foofu laa bëgg a yem rek di la santaat di gërëm di ñaan yàlla yàlla yokkal yokk sa taxawaay yokk la wër ngir lépp loo xam ne nekk na loo sumb suñu borom may la nga mottali ci ay bu mu nekk ay bu sedd guy ay boo xam ne dana yokk bu baax a baax lislaam bi dana yokk bu baax a baax tarixa bi dana yokk bu baax a kon kàddu yi loolu rek la woon di la santaat bu baax di la gërëm jërëjëf ndax moo salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam